ndax ki nu ñàkk sunu papa la ñun moo ñu yar moo ñu yar daaw ndax tey jii xale ku ci am fit fii tey mun naa ci moom la ndax fu bi doon demee ndax Baye baal la dafa nekkoon façon nit boo xamee ni léppam activité la te léppam jàmbaar la soo waxee da nga doon wax écurie école de lutte école de moo fu njëkk a formé ndax dañ doon wax euh, écurie waalo su waxee écurie waalo euh, moom moo fa nekkoon Baye Balla la père Aline Seye père Mohamed Ali waaw Lac tey jii après ak ñoom Mbaye Samb ay ñoom Fallou njaay ñun ñu ñëw nekk seen rakk comprendre nga léegi tey jii mu daal ñëw ñu indil ko Balla Gaye 2 mii ngay gis nii tey at lees 2 ñu nekk ay booy mu forme leen ci biir écurie bi daal ne damay formé école ndax booy dañu ñëw ñun booy nekk ci biir écurie bi tam nekk ci biir école bi mu dem ba bi daal formé école de lutte am foofu la école turu école de lutte jógee te Baye Balla moo ko njëkk a formé Sénégal moom koy tey école la ci làmb école la école la ci làmb tey ndax Baye Balla façon la boo xamee ni tey ji dafa bëggoon aar bi ba pare boxeur la woon Baye Balla boxeur la woon boxeur la woon tey axlu làmb moo ñàkk waa Géejawaay ñoo ñàkk axlu làmb moo ñàkk waa Géejawaay ñoo ñàkk waa at ñun ñi tamit ñoo ñàkk at Balla Gaye 2 mooy ñàkk Balla Gaye 2 moo ñàkk ndax tey Balla Gaye 2 jàpp na ci bu baax a baax te paa bi tamit ginnaaw yàlla ak yonte bi tey taxawu na Balla Gaye te Balla Gaye tamit taxawu na ko kon nag ñoo ngi leen koy ñaanool di ko jaale Balla Gaye 2 ah di ko jaal di ko jaal suñu bopp di ko jaale Moussa Ndour muy taawam ca Espagne ak Youssou sunduur voilà waaw ndax Baye Balla sunu papa la woon daal ñun suñu xamee dara moom la tey jii moo tax na rafet àdduna amu solo loo fi gis jeex tey mag ñaa ngi dem xoola père Mor Faram dem na père Aline Sey dem na tey Baye Balla dem na kon na rafet àdduna amu solo ñun géejaway nanu booloo nekk benn tey yéen tey jàmm di xàccandoo di dóorandoo àdduna amul solo fii loo fi gis dafay jeex na rafet ñoo ngi jaale nag axlu làmb yëpp di ko suñu ko jaale suñu bopp rek ñoo ngi koy jaale axlu làmb suuf Cambérène yàlla na sedd ci koom ndax moom Seydina naa Laye rek la gëm la bëgg kon nag yàlla na suuf Cambérène sedd ci koom ñoo leen koy jaale yéen tamit yéen yëpp seen taxawaay rafet na jërë ngeen jëf. ginnaaw bi xëyee ñu wax ma xëyee seetaan stade yi sama yaram dafa daw quoi parce que Baye Balla mag ju baax la mag ju doon jàmbaar la woon ku bëgg waa Géejawaay la xamewul Youssou Ndour ak Balla Gaye dëgg liiru jaaña kenn école ba ñëpp la yemale. man yaakaar naa école ba yàgg naa fa trop daanaka ba ma nekkee booy laa fa ne woon ba mbër yi fëll ma topp sama job quoi mais dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla xeer àjjana quoi parce que paa bu dëgg la doo ko dégg ci yéen mukk xamul lu ko naka rek lu ko lépp lay boole téye kon dañ koy ñaanal yàlla xeer ko àjjana di ko jaale doomam aram waaw loolu lañ koy ñaanal quoi nit ku baax la. waaw di masawu ñëpp si li dal di sigiru ndigaale ñëpp di Sénégal yëpp ndax Balla Gaye Balla Gaye 1 Balla Gaye Sénégal la waaw Sénégal la di jaale waalo waalo yëpp di ñaan tamit moom moom ak ñoom fa fekk yëpp yàlla xarale àjjana muy tubaabu joor muy Daawudu Fall muy Alsan Jaxate mool faram ñoom ñëpp ñu nga ñaan yàlla si kattanam si barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla xare leen àjjana fi daw si si barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. waaw grand la woon boo xam ne grand bu baax la ku yéene nii jàmm la ku yéene ni jàmm la man déggul xam naa ci dara ndax bi may defal sama école de bii xalaatuma ko woon ñoo tase RTS mu ne ma déggul ma mu ne ma yow bëri bi ñu si yow lan moo tax mënu ko def si xale yi. ma ne ko garaaw koy déglu si xale yi mu ne ma non non dama bëgg nga former sa école de def comme seen morom former fo bëri bi nga yor nga jox ko xale yi loolu moom ma koy wax te daf ma ne boo la ko waxee lii ma la wax mun naa man ne demal ba si kanam ni ko di nga si xam dara boobu xamoon sama doom day bëre xamoon dara waaw mais waxam laa topp rek xam ne moom yàlla am na lu ko may am nga lu ko may waaw dem ba nga xam ne xam naa ne kii nitu nitu nitu diine la ma ma ñemee loolu def ko waaw di ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla xale àjjana njaboot bi mu fi bàyyi yàlla na ko fi yàlla si yàlla teg loxoom waaw di ñaanal képp koo xam ne waalo waalo nga maa ngi lay jaale di la di la ñaanal yàlla si kàttanu yàlla ak yonent bi waaw mu fekk magam jooju nag daaw di faal yàlla na leen yàlla xale àjjana fi daw si barke Seydina Muhammad. monsieur maa ngi lay di la ziar. maa ngi delloo maa ngi delloo ziar leen di. ñëpp xam nañ li la fi tax a teew tey muy génn ko àdduna Balla Gaye numéro un yan témoignage nga mën a def ci moom. waaye ñuy mooy moom paa bu baax la paa bu laabir xol la paa bu bëgg doomu aadama waaw ndax ñu mën si mbappatam laa njëkk a bëree waaw kon kooku moom non kenn yan la ko yàlla xare àjjana rek. ndax na ñoo ci diggante demlante ku mu bàyyi làmb ak léegi. non sa sa paa la dëgg la sama papa la comprendre ñëwee fu ñu toog fu ñu nekk dañuy dañuy toog waxtaan waxtaan si waxtaan lu xotti àdduna. Mm-hmm. waaw muy expliqué ma wax lu bëri ma koy wax lu bëri. Mm-hmm. sama paa la quoi. Mm-hmm. moo la gën a marqué durant bi ngeen xamante ne. waaw xam ma rek boo amee ki mag mag bu toll ni moom dana dana doon conseil conseil baax bu demee dana am loola manqué lu bari waaw waaw nag xam ma nag nit nag yàlla mooy mooy bëgg li mu bëgg. li mu bëgg rek bu ko jëlee moom kenn mënu si dara ndax ba mu ko sàkk tàggu bu ko yóbbu du la tàggu te mënoo si dara dañ koy ñaane yàlla rek fi mu jógee gën a ko fi mu fi muy jëm dal na ko yàlla xare ajana fi daw si si barke Seydina Muhammad waaw ok merci te yow nga nekkoon foofu nekk ak moom nekk ca ikiri ba maanaam loolu bi nga ko yëgee lan la def ci yow maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm muy lu metti nag lu tiis si man waaye nag dee du jaas buntu kër gu ne dana ko fëgg ku ne fe na doo dee da ngay nax sa bopp bis bi ku ne war na ko xalaat dafa tombe ci moom rek waaye dana fëgg ku ne Balla Gaye ba mu tekkee ngembam ku ko xamoon bu jëkk ba mu tekkee ngembam la la dudd àdduna dee bi mu dee nii ku sóoraale woon ci àddunaam démb heure bi ñoo nekk ñuy waxtaan dafa xoon bu ma deewoon léegi sax baax na ki Balla mii turandoom la Balla Gaye dee mii turandoom taxawu na ko nag jàpp na ñun ñoo ngi dégg lu ne. nit ku ne mi ngi wax dafa neex dafa naq rek rek ku nu teg micro rek ngay wax nag loo xamul doo waxu na fekk waaye turandoom bi taxawu na ko jàppale na ko ba bisam bii tey ba bisam bii nii moo ko taxawu kon kuy wax na nga seet li ngay wax. xool li ngay wax Balla Gaye kanamam leer na ginnaawam leer na bañ na ko tey nga dem ba sa sëriñ ne indil leen ma ko ma def ci moom lu war ñun dañuy sant yàlla. man damay ñaan bis bi yàlla na ma ko yàlla jox bala ba muy takk ngemb laan ne àndoon ak moom ma yor leen soo boxe bala gay dey ñoo ànd ba mu nekk roi des arènes ma yor ko ci wàllu boxe sendu nekk naa moom foofu ñetti weer kenn fekk suñu foofu mu ngi nii toog muy ku baax ku ko jàppale nag ku ko taxawu dafay feebaru dee kenn mënu ko faj bu ñëwee rek ñëw na lu fu bàyyiwul yonent yàlla Muhammad kenn ku yaakaar dana fi bàyyi dangay nax sa bopp lu yóbbu seexul xaddim yóbbu yent bi yóbbu maam alaaji malik yóbbu kunta njaasaan ku yaakaar dee dana la fi bàyyi dangay nax sa bopp fii ñu toog limaamu laay ngi nii ñu jàkkaar te dem na te moom la doy la woon kon nag balla ginnaawam rafet nag kanamam rafet nag yàlla na ko yàlla xare àjjana man nag ko am na samedi bii di ñëw laa waroon maye doomam man la ko bàyyi la te gis nga tey fekkewu te démb bi rek ñu ngi toog di waxtaan kon dama koy sant yàlla lii mu am ne nag man yàlla na ma ko suñu borom may ci dara ci yonent bi Balla Gaye 2 yàlla na ko fi suñu borom bàyyi guddal fanam parce que wax dëgg yàlla taxawu na ko taxawu na ko lool keneen kuy wax nag rakkam ma ngi nii Balla Gaye rakkam mi ngi nii kii moo ne mbuur paate mi mook Balla gay ñoo bokk ndey ak bàyyi kon kuy wax ku mot a wax la waaye gis nga ko ni nga ko gis da nga naan sax bokkul ak moom ndax maandu parce que ñun la ko bàyyil kon nañ sant yàlla seen télé yi tamit seen journal tamit yàlla na ci yàlla wàcc jàmm yéen a yàlla defal leen jàmm yàlla guddal seen fan